88 628 98 98 yeeg jotaayu wax sa xalaat bi eh, ñu daal di fàttali ponk yi wàllu accident yi eh, bi ci mujj bu tey bu Sibassor daanaka keneen sax daal nay dooleeku ñuy daal di faatu lim gi dem ba ci eh, ñeent ci ay nit kon am yeneen juróom-ñaar yu nekk ci lalu l'hôpital ci biir ayu bés bi ñu génn rek lu beneen accident ca Njongolor ba lu war a ci juróom ci ay nit itam ak gaañu gaañu yu bari ñu nemmeeku ci wàllu accident yi kon benn ponk la ci wàllu fichier électoral bi coow li bu ñuy waajal élection union élection euh, ak waa FNR nañu daal di rejeté conclusion yu bàyyi ko nag ci gëstu experts yi naka ngeen ko jàngate Assane 88 628 98 98 ñu jël auditeur bu jiitu ci. jàpp naa allo. allo salaamaaleykum. Adama man la Anna Mendy di woote parcel maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sud FM yëpp. ñu ngi lay fay waaw. waaw ma ne opposition bi. Mhm. nañu xam ne borom xel la ay boromi xel la ñuy waxal. fichier bi ñu naan baaxu te nga ne baaxul te élection bu ñëw nga dem élection bu ñëw nga dem ci fichier électoral bi opposition bi yëpp ñoom ñëpp juróom-ñaari élection yi leen Macky Sall dóor yëpp ci benn fichier boobu la. élection bu ma a am Sénégal gouvernement moo koy diriger. suñu système électoral bi moo baax moo baax kenn mënu cee sàcc dara gouvernement dirigé na ko gagné ko ay yoonu yoon dirigé na ko perte ko ay yoonu yoonu yoon kon loolu lu wóor la duñ ko changé tey ñu ko changé ëllëg bu gagné élection Sénégal carte moo la ko may ñoom nañu fexe ba seen électeurs yi woote leen tappale bi ñuy tappale ñëpp xam nañ ko duñu mos a nangu dara lu baax duñ ko nangu duñu mos a nangu dara loolu la ñuy wax ne ku amul doole da ngay xalaat bu yenu jotee ñi amul doole dañuy xalaat seen bopp bu ñu dofloo sénégalais yi yeewu nañu kenn mënatu leen a nax ci ay plan xam nañu lépp nu mu demee maa ngi ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaan président Macky Sall fi mu bëgg a eggali projet yi projet yi mu sumb yëpp yàlla dimbali ko mu eggali ko si jàmm ak salaam maa ngi leen di gërëm tam waa Sud FM bu baax ministre de la santé ak équipe am yëpp merci Adama. ok ah, di jàngatam soxna si jaajëfal ko xaar keneen ci ligne bi bitim réew 33 841 22 33 ñu jël keneen. allo salaamaaleykum. allo allo waaw. Adama. waaw. na ngeen def ñu ngi fi. booy Jolof Jolof taximan. ñu ngi lay nuyu ak waa Jolof. na ngeen ñu ngi sant yàlla bu baax. di ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ndokkeel di leen masawu coono. Mhm. boo li ma bëggoon wax li jëm ci wàllu affaire accident yi en tant que traitement man dama ñaan sama mbokki chauffeur yi. Mhm. nañu ànd ak yar ak teggin ci kaw tali bi respecté li nga xam ne moom la ko doon santaane. Mhm. defe naa bu ko defee dinañ am jàmm. te itam Adama maa ngi ñaan sama mbokki chauffeur yi nañu wàññi xel yi xel yi bokk na ci li waral accident yi. xel yi nañ ko wàññi bu baax a baax a baax ñu dawale ak seen i xel ak sago. beneen bi ci des lu jëm ci wàllu affaire euh, fichier électoral bi Adama. Uh-huh. ad allo allo waaw yow rek laay déglu waaw. waaw lu jëm ci wàllu fichier électoral bi. Uh-huh. président de la république Macky Sall dafa am opposition lu ñu ko ñaanal da ngeen woon nañu ko seetaat fichier électoral bi. Uh-huh. mu nangul leen ko léegi ñu jël ay expert ñu saytuwaat ko bu baax a baax ba expert li ci ëpp ci seen i wax nee nañu carrément affaire bi baax na mais man damaa xamul opposition bi lan la ñu bëggati wala ñoom dañoo pareegul wala. ñoom dañoo pareegul nañ ko wax nit ñi bu fekkente ne pare nañu maa ngi ñaan président de la république Macky Sall fii ak décembre fii ak décembre. Hmm. nañu organiser élection élection bu ko defee ñu euh, ñu xam ne carrément ñun waa benn bokk yaar benn bokk yaakaar fu ñu taxawoon ba léegi ñun bougé wuñ ko. Hmm. man damaa jàpp ne opposition bi rek ñoo pareegul mais suñu paroon léegi léegi dañu dugg ci géew bi. Hmm. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ok euh, loolu di jàngatam sëñ bi jërëjëf ñu xaar keneen ci ligne bi ñu daal di koy jël 88 628 98 98 beneen allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum salaam. waaw sëñ bi. waaw sëñ Adama. waaw. na ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay bu baax yooyu. di rafetlu émission bi. ok ñaanal ñëpp jàmm. Mhm. waaw ma ne. waaw. li gars yi di wax naan fichier bi leer na ak leerul. Mhm. réew mi ku ne xam na ne fichier bi leerul. Mhm. ñi voté ñi voté wul ak ñëpp. wax ju bëri rek moo fi nekk. ñoom ñi nga xam ne dañ leen a jëloon nañu saytu fichier bi hmm. dañ ne am na lu ci normal am na lu nga xam ne mun nañ ko seetaat loolu ñu wax na nañ ko seetaat nag mais nañ ko seetaat hmm. loolu mooy problème bi mais nan la ñu nit di inscrire ak bulletin de naissance nan la nit di inscrire woo ak euh, xawma registre xawma lan ki wu jëla kii di jox seeta carte di jox carte d'identité xawma ni mu demee yooyu ñu voté ko ci ñu ñu inscrire ci ci liste bi ñu ne normal na ñu seen fii ñu nga xam ne mooy de douze ans ñuy voté ñu ne normal na waaye gémmiñ bu waxul dëgg wax leneen ñu dimbali ni ñi moom mën na moo am doole moo am lépp waaye na voté ci na na organiser ci yoon rek ku gañe gañe loolu mooy adduna ngeen baal ñu yéen ñëpp jërëjëf waaw ah, ah, loolu mooy jàngatam sëñ bi ñu xaarati keneen jël ko Assane ba tey ci ligne bi jotaay wax sa xalaat la ñaari ponk wàllu accident yi waaye itam lu aju ci wàllu nag euh, fichier électoral bi ak rejet FNR allo. waaw dafa mel ni demoon na ba jub si di nag euh, dem ñu xaar keneen mu yegg si ñu jël ko allo salaamaaleykum. dina waay ku sàggan a fay eh, yaa ustaas waaw maa ngi jaar ba sa ndongol daara la Malick si ngir na parxa waaw ñu ngi lay nuyu Malick eh, maa ngi nuyu Ousseynou Diatta ci man bu gën sax mais Oustaz Adama waaw yow journaliste nga yàlla xam na ne man mi waxee yow sama beneen soxna yu ba léegi jurukat daan dem hmm. benn reportage Sénégal yi cinquante huit pour cent yi président Macky Sall wax na am na ko ci élection yi passé nii ay euh, euh, Oustaz Anama. Mhm. gars dañoo sàcc élection yi mais quarante quarante et un pour cent Sénégal yi jëriñu seen carte seen carte électeur Oustaz mhm. man gis ay minti Sénégal yoo xam ne yàlla xam ne mbir mi mënuñoo jot seen carte d'identité. Mhm. yow loolu naka la nii mën naa amee carte d'identité en tant que sénégalais am fukki at juróom-ñett ñeent yi amoo droit wote. Oustaz. waaw. nañ seetaan réew mi tax ne Mamadou Diop Decroix li mu wax mooy dëgg. Hmm. tiisi bi baaxul tey baaxul ëllëg nañ jox Sénégal seen carte d'identité. nit ki mënul nekk Sénégalais ba pare ñu nga am sa carte d'identité ñu ne la mënoo wote loolu du dëgg du yoon. Hmm. jërëjëf maa ngi sant bu baax di gërëm. ok euh, jaajëfal ko mbokk moom mu woote itam euh, ñoo xaarati keneen ci ligne bi jël ko ba tey ci wax sa xalaat bi Assane beneen auditeur. bëgguñu sa turu di ki la jox nga lekk bëggul nga dee jàpp naa dootuma bay ak 88 628 98 98 bu mu jokkoo bi bitim réew 33 841 22 33 wàllu accident yi ak ñetti ñi faatu accident tey ñeent sax la ñuy wax waa itam wàllu fichier électoral bi ak rejet euh, FNR kuréelu position bi jàpp ne nag ba tey la yëf yi gën nag lëndëm gannaaw càmbaru expert yi ñu jël beneen auditeur ci bi allo alekum maaleykum salaam. waaw sëñ bi. waaw sëñ Ndione na ngeen def. waaw ñu ngi fii waaw Aliou Diouf Paris. Aliou waaw ñu ngi lay nuyu Aliou. waaw waaw ñu leen di nuyu. Mhm. di leen baalu àq. ok. waaw di nuyu Boy Malika dañ nañ ko dégg. Mhm. bon xam nga dañuy wax ne fichier électoral mais fu mu nekk nii est-ce que fiche affaire fichier électoral warati nañ ko wax sax. Mhm. dès lors CEDEAO nee na. parrainage bi jaarul yoon warta am c'est illégal kon normalement kon léegi président bi il est illégitime parce que ñun si si si CEDEAO la la la ñu basé wu CEDEAO nee na parrainage bi baaxul kon kon normalement kon léegi waratuñu su ndax fichier bi baax na wala déet sax ah ce président illégitime dañu war a organiser élection ki anticipée parce que dafa falu si loo xam ne du yoon waaw pare parrainage jaarul yoon xamal ne fichier ba jaarul yoon waaw lu yenu maanaa dañ koy gis ok jërëjëf. waaw ah, kon mu ngoog loolu di jàngatam ñu xaarati keneen jël ko Assane 88 628 98 98 beneen auditeur ci ligne bi. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum allo waaw dafa mel ni jàppandiwul ñu xaar mu dellu si wala bu amee keneen ñu daal di koy nag jël ci ligne bi allo. salaamaaleykum waaleykum maa ngi fi. maa lay siyaar Barke ñu ngi lay nuyu Sarr. Adama accident yi laa bëgg wax. waaw. fii ñu naan bayax de jëm Tëngéej Dacia li ñu fiy def doy na waar lool. li ñu fiy def. te man damaa gisoon ñu woote woon assemblée nationale décret boo xamante ni oto yi tente yi c'est interdit. Hmm. mais fii Dacia bu ñu tentul amul fii lu de dalee ba bayax ba ba ba ba Tëngéej li ja ba bayax ba nooto. Hmm. ay Dacia ba bi semaine bee paase Dacia la woon. te ñu ne nombre dacia six personnes la war a def te fii li fiy def si dacia yi li ñuy yàpp c'est trop oto yu ndaw di rey ay nit comme ça vraiment c'est c'est ñu ngi leen di sant di leen gërëm mais vraiment tali bi war na nañoo xoolaat ñi ñuy jox permis yi xale yu ndaw yoo xam ne jànguñu dawal ñu dara da génn sa kër léegi ñu yóbbu la Touba da ngay génn sa kër léegi ñu yóbbu la Armelia si xale yu ndaw vraiment ah, di leen gërëm aadama hmm. Adama. waaw. addoon naa fi si uh, Babacar Ngom. Hmm. na bàyyi suuf si li mu a def yépp mën na koo def ci pulaayaam yi nekk si àll bi merci beaucoup. Ah, ñu xaar keneen ñu jël ko bokkul ci bonk wax sa xalaat yi tey démb la suuf si ñu woy jël keneen ci ligne bi. ki la jox nga lekk bëggul nga dee jàpp naa. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam El Adama. waaw. nuyu naa la nuyu sa équipe technique. baalu ñëpp àq te baal ñëpp ñu ngi lay fay waa. di nuyu honorable député Adjaratou Sow Diagne Touba Darou euh, daal man boo doon président de la république. Mhm. léegi moom moo ci moo ci des. Mhm. moom na jël ko ay ses deux mains bu fixé ay élection mhm. man bu njëkk dama daan xaw a dal tuuti si état mais mais dafa mel ni opposition bi cette fois ci ñu bëggul dem élection mais toute œuvre humaine n'est pas parfaite c'est normal que. moo am ay erreur de paramétrage mais ça veut pas dire que fichier bi baaxul fichier bi ni mu ci wax daal dégg nañ ko y a eu aucun problème hmm. ay élection lañ jógee observateur yi ci nekk yëpp validé nañ ko. Hmm. kon daal xaw di wax naan ay parrainage rek Macky Sall nekk naa yooyu yëpp wax ju yàqu la dama ne na président bi jël courage am. Hmm. xool heure bu war organiser élection mu organiser élection yi lu waay am jël loolu mooy dëgg te yoon ñoom indi nañ fi ne dañ audité fichier bi. ñii des experts mu am un accord commun ñoom ñëpp am un accord un consensus ñu d' accord ci audité nañ fichier bi yooyu aucun problème yu dul ko ñu ne yaa yaa c'est normal il faut que moom ay détails ay erreurs de paramétrage mu mënul ñett toute œuvre humaine n'est pas parfaite c'est normal qu'il y ait de petits de petites erreurs yooyu mais n'empêche que yooyu teewul nit ñi dem élection fichier bi fii ba yomal xëy na mën na sa cee dem ay élection ba pare ëllëg nga dem vote ji nit ñi war a dugal seen bopp ne heure bu ne ubbi nañ fichier électoral bi ñu bëgg a bëgg a voté nan dem inscrire fichier bi da koy ubbi te te te euh, un temps te T1 intervalle boobu ku ci inscrire même bu élève même bu ñu tëjee fichier boo amee carte d'identité du tax nga voté nit ñi aussi nañu yeewu tuuti. jërëjëf oustaz Adama. Ah, ah mu nga ko di jàngatam ñu xaarati keneen ci ligne bi bu ñu ko waxtu maye 88 628 98 98 wax sa xalaat bi ñu wëy Assane allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. waa Adama. waaw. waaw man la El Hadj Ba. ñu ngi lay nuyu sëñ bi ba. ah man partagé wu ma ak Ndiaye Diaw tey gis-gisam. Hmm. <laughs> ah su fekkee dañu bëgg lu leer. Hmm. nañu nañu nañu nañu effacé liste électorale yi totalement woote ni yëpp bindu wala ñu basé wu ci élection 2017 ñu ci binduwaat nga xam ne moo indi lëñ ci lëntëm entre 2017 ba 2019. ku ne xam na ne lu lënt mi ngi nekk loolu li newoon ci liste bi yëpp nañ ko dindi à partir de 2017 yi la tamewoon moom leeroon na kenn mus te contesté ci ci électoral bi à partir de 2017 nag ñu ci son ñu annulé ñu dunduwaat képp ku mu intéressé baax na ku mu intéressé ku ne xam na ne taux de participation 2017 baaxoon na bu fekkoon ne ci la yem képp bu bu bu élection yi ñëwee mën nañ ci sukkandiku defaat comme li ñu defoon élection waaye yi ñuy wax nii man damaa xamul Cheikh Sarr kan la mel ni kuy wax ay gone te man jaaxal na ma trop wax dëgg man damaa xamul ci ban parti la bokk ba ne moo jiite bennoo si ji seen bennoo xaw mbokk yaakaar xaw na ne moom a nax sénégalais nekk fa nekkal sa affaire ak nekk fa nekkal fa bennoo bokk yaakaar sa man Cheikh Sarr ay ci ñax a jëriñu laa ko xamoon te parti boobu déggatuma su yëkkatee lu toll noonu muy jéem a bëlëf di jéem a kii yooyu day nax boppam mais mënut a nax askan la gërëm di la sant jërëjëf Assane kon nag ñu daal di xaaraat keneen ci ligne bi ba tey jotaay wax sa xalaat la nekk 88 628 wàllu accident yi ak wàllu fichier électoral bi. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ ñu ngi lay nuyu delloo ziar bu baax. si fichier bi laa bëggoon a wax tuuti. waaw. fichier bi mi ngi gëj baax ba Macky Sall gagné Ablaye Wade. Mhm. fa mu ko gagné. fa la bi gën a baax fa la gëjoon a baax. Hmm. noonu la ko waroon a bàyyi ñu demaat ci ay élection waaye ba mu ñëwee xam ne gañe na Abdoulaye Wade ci ngor ñëpp nangu ko ko ndax Abdoulaye dafa joxoon élection yi keneen organisé ko fichier boobu baaxoon na kenn constat contesté wut defuñu dara war ko woon a laalaat ba fi ne nii boobaak léegi élection yi fi tag bi yëpp di contestation moo ci am bi dara baaxu ci xoolal bii ba audité nañ ko pare ñu lu ëpp un million de personnes dañ doon bind ay ay ay certificat ak xuma lan ak lan ak lan ah dañ leen war loolu baaxul ah un million de personnes boo ko jëlee nëbbu ko wala nga bindal ko ñoo xam ne bu ñuy dem élection nga jël ko tuural ko nguur gi mais opposition bi xam am nañ droit gis nañ ci ay loo xam ne baaxul fichier bi baaxul bu ñu ci demee nii élection yi passé demee woon noonu lay demee bu ci kenn dem ci élection yi baaxul tey baaxul ëllëg euh, assuré yàlla nañu yàlla musal ci accident yi tax mu jeex ndax chauffeur yi tamit am nañ ci responsabilité bu mag a mag a mag a mag état bi tamit dadul sanctionné bu baax ndax am na façon accident yoo xam ne sanction da ci baax ndax xoole euh, accident boobu am si boor yi booy dem Saalum ah ñaari oto yi mbëkkante daw ba metti nañ def ndànk adduna bi kenn mënu koo matal ku dem ba nga bàyyi mébét yal na yàlla def jàmm si réew mi hmm. Euh, kon nag euh, mu ñu fi daal di ko fii nag yemale waxtu wi daal nañu rek euh, dàpp jaajëfal ñu woote jéggalu ci ñi desoon ci ligne bi dig leen daje yeneen i jotaayu xibaar ci kanam tuuti page ramadan laata nag 22h ak Josette Kaly jaajëfal Assane Diouf ci sottandikukaay bi muccug bi tey jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak fekkeektal yàlla nañ ko yàlla defal jërë